crise boo gis rek opportunité la ñun exercice de vérité bi ñu def àdduna yépp a ko saluer te mun naa ne leen dina renforcer la crédibilité du Sénégal sur l'international et au niveau du pays dégg naa Amadou Ba nga xam ne moom ci pire yi la bokk ndax nekk na ministre des finances nëbb chiffres yi nekk premier ministre nëbb chiffres yi dégg naa démb mu naan gouvernement un gouvernement ne doit pas crier au scandale kon moom d'accord na ni scandale am na moom d'accord na ni am na dañu wax ni dañu wax ni ku aju bëggul ku teen ku aju bëggul ku teen waaye ma koy jox benn assurance rek mooy lii responsabilité am ci mbir mi ak keneen ak keneen lii seen responsabilité faw rek ñu layoo kook askanu Sénégal layoo ñu kook man de askanu Sénégal parce que ñëw jalgati réew mi def naka sudul noonu pour mun a toog ci ay milliards ci ay fonctionnaires simple ba pare jàpp ni mun nga koy mujjee noonu dafay yomb Sénégal am na ñoo xam ne waratuñu woon wax ci politique amatuñu droit wax ci politique su doon yenn réew yi dañu waroon am déchéance civique parce que wóoru ñu ñu leen di dénk ñooñu dénk leen quartier sax wóorul wax ma nga leen dénk ab réew Sénégal am na ñoo xam ne waru suñu wax ci politique te lii benn affaire la mais ci fan yi di ñëw bu ñu paree ba installé di ngeen xam la ñu def ci suuf si di ngeen ko xam fii di aéroport bi rek aéroport bii rek di kenn koo xam ne benn tiit rek la mën a fëggee dënnam mooy maay géewlu président nga am ci ay un hectare deux hectares ci bi dagg ko ay suuf su dul jeex di jaayaat yor say milliards toog foo ngeen di loolu yoon la est dañ koy bàyyi mu romb ci réew mi su dee loolu sénégalais yi d'accord nañ ñu bàyyi ko mu romb parce que dañ koy teg ci ay maslaha mooy réew mi jaratul kenn di xeex ngir dara parce que pratique yooyu moo tax ndaw ñi waroon am liggéey amuñu liggéey ah. moo tax faw mu jeex fi waaye waxuñu ko pour jooytu dama leen bëgg a wax ni on a notre destin en mais liggéey bu ñu war a door la bis ni ki tey su ma déggee ñu naan FMI banque mondiale diw ak diw loolu yëpp baax na waaye ñu yoruñu suñu dund yoruñu suñu réew il faut que yéen ñëpp ngeen xam ko est-ce que ñun sénégalais yi pare nañu pour def li ñu war a def pour am suñu souveraineté est que pare nañ ko loolu dafa laaj nag ñu bàyyi gis-gisu jooni jooni jooni jooni baaxul réew dañ koy tabax méthodiquement brique après brique dañ koy tabax ci effort ak sacrifice ñun am nañu possibilité financer suñu bopp est-ce que xam ngeen loolu dinañu proposer sénégalais yi gannaaw asa euh, élection législative yi nañ leen proposer des leviers endogènes de financement daal di andi des modèles de financement innovants lu mel ni lancé am nañu ko tuddee woon diaspora bond may profito bi féliciter la diaspora sénégalaise ci seen taxawaay ak seen xeex. ñoom it kenn demul ñu des waaye la ñuy waajal buñ koy sànni duñ ko tuddee diaspora bond patriote bond lañ koy tuddee parce que li xew fii tey rek wane nañu waa réew mi seen bopp ñi ne fii ci biir réew mi kenn amul ëpp leen capacité de mobilisation kenn am ëppalewu leen capacité war làmb dara seen poos pour dugal ko ci loo xam ne njëriñu ñëpp la léegi dañ ma ne xayma bu njëkk bi ñu def rek nee nañu levé nañu déjà lu mat 500 millions te mbir yaa ngi continuer di dugg. ngàcce gaalaama Pastef dama ne kuy tibb tànk way wala ngay marquage culotte rek defal ñu gis loolu mooy nit. nit bu dee danga koo fan ba tax nga ne lu mu def ma def ko bu wootee arena Dakar arena xanaa kay suñ tegee ñetti fan nga woote Dakar arena bu levee cinq cent millions xanaa kay nga góorgóorlu ne man sax levé naa cinquante mille francs ma wàññil leen ko rek moo tax li ma bëgg ñu jàpp tey mooy nous avons notre destin en main nañu gëm suñu bopp dinañu def les réformes qu'il faut après élection législative bi dinañu def les réformes fiscales qu'il faut parce que am réew xam ngeen lu ko yor réew l'impôt moo yor réew dama bëgg Sénégal yëpp xam ko la ngay dem lebi ji ci biti l'impôt la rek boo xam ne danga nga koo décalé parce que l'impôt bi ngay fayeku ëllëg